يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom fi toog jotaam Cheikhul Xaddim waaye noonu la ñuy nuyoo sëriñ Mortale Gueye mi nga xam ni mooy xalifa Badar waaye itam noonu la nuyoo xalifa suñu waajur muy sëriñ Cheikhouna Gueye Badar noo ngi nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi sëriñ Mortale Gueye yow itam noo ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa taxawaay ci daara ji ndax biñ ko sosee ñëw nga fi bi mu demee ba daara ji taxaw itam ñëwaat nga fi di xool nu daara ji doxee. loolu tam ñu ngi leen ci sant bu baax di ci sant waa Tawfekh Production ci ni ngeen di taxawee ci suñuy mbir ñu ngi leen di bu baax a baax. ok li tax ñu taxawal daara ji muy ku ñu xam xam suñu yitte ci di feex lislaam bi gën a dëgër ci réew mi ak jikko yi euh, di fexe itam jamono ju nekk loolu moom ku ne xam nañu ci loolu moo tax nag li ñuy wax nag naan bala ngaa digle sangu na fekk nga sangu ba noppi moo tax fi jamono toll ñu xool. Euh, lan lañ war a taxawee liggéeyal ko sëriñ bi te gis ni sëriñ moom dara gën koo ñor alxuraan gën ko dara gën koo ñor xam-xam moo tax fii ci Dakar ñu samp fi daara ji tuddee ko daal ahlu badar di fi jàngale alxuraan ak xam-xam loolu nag mooy yittey daara ji loolu moo ko taxaju a jug. Hmm. waaw programme daara ji moom ni ndee mooy euh, alxuraan lañu fiy jàngale ak xam-xam euh, ni niñ la ko waxee rek. muy taxawaay bi ñu am ci lislaam ak bëgg diine gën a jëm kanam moo tax nu samp daara ji di jàngale fii nag alxuraan ak xam-xam ay gone ñoo fi nekk waaye daara ji tamit daara ju nosu la joo xam ne bu ñu yeewoo fajar jàng bëccëg ñu jàng bu ñu añee ba noppi dañuy dallu bu ngoon gee tamit ñu dëgg leen bàyyi ñu foo xam nga rek ay xale boo leen yoree itam doo leen mën a tënk ndax itam xe foo googu ñuy def ak nekk ñu nekk seen bopp léeg-léeg dina gën a ubbi seen xel bu ko defee itam ñu jàng Euh, doog a dallu loolu mooy programme daara ji waaw comme ñi nga xam ne ñooy nekk ci biir daara ji dañuy jël ba bu amee dix-huit ans nag moom dootuñu mën a jël bu nekkee xale boo amee ñeenti gis nga fi ñoo xam na ñeenti ba dix-huit ans dañuy dañuy jël xale yu toll noonu bu ko weesoo nag moom dootuñ jël waaw xam nga alxuraan moom doo ko doo ko tënk xam-xam yi doo ko tënk moo tax itam jàngum xam-xam am na fi même tamit am na programme boo xam ne tamit maa ngi ci ndax itam luñ bëgg a yaatal la dañoo bëgg waaru alxuraan daal xam-xam waar la waxoon bëgg nañ cee liggéey te jàpp nag jamono ji dara gërul nag jéem a tàggat gone yi ci alxuraan tàggat leen ci xam moo tax itam na programme beneen boo xam ne ñu ngi koy def ngir bëgg ñu mag ñi nga xam ne tamit dem nañ ba toog kër bëgg a jàng bëgg a jàng bu ñu woowee ci numéro yi nga xam ne war ngeen ko ñi ngi jël ñeneen ñoo xam tamit jàng nañ xam-xam dëkk Tuuba ñenn ñi nga bind nañ leen bu ko defee ñooñu la ñuy tas ci dëkk bi ñu jàngal ñi nga xam dañoo bëgg jàng xam-xam moo xam ba at yoo man di am ni ko suñu Muntaxa waxee rek daan xam-xam du wees te itam kenn du ko jommale sa bopp te tam jamono ji yomb na lool lool itam programme la bu weesoo gone yi nga xam ne ñoom lañ teg ci kër gi leen jàngal nekk ñoom ci programme bu wér te itam yàlla di ñu ci dimbale ni ñu ko bëggee ñu ngi koy amee noonu noonu tam lañ ko bëgg a tasee ci mag mi nga xam daa toog këram bëgg xam-xam tamit te mënu ko am bu ñu woowee ci numéro allah dinañ ko fekk ba këram gi nekk équipe boo xam dinañ dinañ ñu taxaw ci yu mel noonu waaw bi la waaw daara ji mi ngi nekk euh, front de terre côté Castor li tax ñu def ko fii tamit wala Sëriñ Tuubaa bi mu samp Tuubaa li taxoon muy bëgg a wéet ndax tamit ay gone boo leen di yor da ngeen yóbbu ci bërëb yu yoo xam ne seen xel nekk ci lu dul environnement boo fa nekk fii itam boo dikkee bërëb bu wéet la bërëb boo xam ni di nga fi mën a yor xale li nga bëgg mu ne ci moom rek moo ci nekk moo tax ñu dikk fii ci front de terre samp fi daara ji fi la nekk daanaka nag euh, bisi ci les yëpp nag dañuy jàng man itam bisi yëpp maa ngi fi ñun lii moo sunu waar woo xam ni jéem nañu ne dañuy bëgg muy gën a yokk rek waaye mooy yow waar bi nga xam ne ci lañ nekk léegi ki nga xam ne dafay bëgg a ñëw nag moom samedi la fi ñëw ak dimanche ki nga xam ne dafay bëgg li ci gën li a sax mooy dimanche bi mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg a seet si xale yeeg ñi bëgg a jot seen i daal boobaa diggante euh, waajur yi ak doom yi daal diggante woobu la ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a seet daara ji dimanche lañ koy maye lu ci bëri bëri moom waaw li tax nu tijji daara ji moom nit ñu xamee rek muy jamono ju ne ñu ngi góorgóorlu ci fexe réew mi jag li koy jagal nag weesu ni mag ñi moom lépp fondation nañ ko bàyyi fi léegi leen rek moo ci des muy jéem koo ñoŋal jéem ko yokk itam léegi nag gis nañ fi jamono tollu muy ñoo xam ne bokkuñu ñun ay pas-pas ñëw nañ ci réew mi daanaka ëpp ñu doole ndax ñu ngi ci programme bu leer di sampoy daara di former xale yoo xam ne. liñ bëgg xale yi di ci nekk ñoom ci la ñuy ne ndax nit ki nga xam dalaa yar formé la moom daanaka ni mel rek ngay mel léegi nag loolu mooy gis ñu baree bare nag defuñu xeex boobu jéem a jub dindi ko waaye li ñuy def mooy tontantee ñoom bu ko defee nag ñoom dañuy fexe di tontante yow ci kaw fekk na ñu ci biir nag di liggéey liggéey boo xam ni mi gën a yokk moo jëru ma leen di tudd na waaye ñu ko ne xam nañ ko waaye xale yo fay jógee moom bu noppeem duñ jàngi xasaayit duñ gëmub sëriñ duñ amuk taalibe te lii rek nag mooy li nga xam nag mooy ak murit Euh, loolu nag bu ñu jógee nag ñu ni nañ ci jéem a def waar waar bi nag mënoo taxaw li lii ngeen def ci réew dindi leen ko li ñu man rek mooy ñun ñi nga xam ne nag moom suñuy maam yàlla dimbale nañu ñu bokk ci ñi daan liggéeyal sëriñ bi bokkoon ci ñi tam ci ñi sëñ Tuubaa daan jéem a euh, jindi nit ñi ci ñoom ndax sëñ Tuubaa boole na leen ak mbooloo kon ñun nag tamit am na waar wu ñu war muy jéem tool boobu bañ a booy loolu moo tax ñu ne nañ samp daara tàggat gone gi mu jàng alxuraan alxuraan bi wér gis ngeen Euh, bu fekkente nga xale yi nga xam ne jàng nañu alxuraan nga xam ne alxuraan ji alxuraan ji wér lay doon yar leen yaru taalibe tamit di jàng xasaayit ndax bu leen fàttali fii itam daa am njàngam xasaayit dafee muy samedi bi suñ sërif li ku ne xam na ko mooy jàngal xale yi xasaayit programme daal la boo xam ni li fi mag ñi nekkoon rek muy jàng alxuraan jàng xasaayit amul taalibe loolu rek moo tax ñu samp daa ji di gën a wax murid yi nga xam nag moom Sëriñ Tuubaa ñor leen ak taalibe ñor leen fi ñuy jël di fa yóbbu seen doom nañ koy xam ndax itam am na ñoo xam sax njàngam alxuraan mi dana ci nekk waaye gone gi tamit bu jàngi tëmutug taalibe itam daanaka mënoo xam ak tam lu mu doon yooyu nag moo tax moo ñu gën a poussé nag ci ñu samp daara ji njàngal ma alxuraan mu wér njàngam xam-xam euh, akuk taalibe lii daal daanaka mu gën a tax ñu samp daara ji di ñaan tamit suñu borom dimbali ñu mu gën a yokk ba ni ñu ko bëggee mu amee noonu waaw si mott daal li ñuy tëjee nag mooy di sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa moom mi nu boole ci ab liggéeyam di sant mboole ñi nga xam ne dañuy safoo jamono ju nekk luñ dugal sax même bu kiiru sax ñoom dinañ ko jël safoo ko wax dëgg yàlla ñoo ngi leen sant bu baax te leen gërëm di sant ñi nga xam ne fu ñu gisee suñu vidéo tamit dinañ ko yaatal te itam dara weesu loolu bëgg ñu bëgg Sëñ Tuubaa xam ni tamit ñun itam suñu yëngu ci loolu rek la nekk ñooñu tam ñu ngi sant bu baax di sant ñi nga xam ne tamit ñi ngi jël seeni doom di ko indi ci daara ji ndax itam léeg-léeg nga gis sax ko xam ne la man ne sama doom mosuma xalaat dinaa ko yóbbu ci daara waaye man gisee nga ubbi daara rek am naa ci yow yaakaar jël sama doom indi ko yooyu nag sas rëy rëy lay doon ci ñun ba daanaka bu nekk ci yenn yitte sax duñ ci sunu xel du mën a dal lu dul nekkuñ ci daara ji wala ci yitte daara ji ndax da ngay xam doom fi mu toll ci waajur ñooñu itam ñu ngi sant bu baax te leen gërëm euh, niñ koy waxee ñoom itam yàlla dogal na ni itam euh, am nañ ak jaxasoo bu baax a baax te itam jamono ju ne dinañ fexe seenu njaboot lu ñu nekk dinañ leen ko wax di gën a dal seenum xel ndax itam doom moom li ma ko wax dafa sax ci xol ñi nga gis léegi ñu jàng alxuraan ji daataa ñu jàng alxuraan ji woo naa seeni waajur ba leen. woo naa leen laaj leen ni leen ndax mën naa jàng man ndax télé dafiy ñëw ñu nee waaw ñu dugal buñ nee tamit déedéet ñu dugal ko waaye bëgguñu rek ñu jékki-jékki gis leen ci télé bi yu mel noonu tam mooy àq ji nga xam dinañ ko am seeni doom rek yu mel noonu moo koy waral kon ñooñu tam ñu leen sant bu baax a baax te leen gërëm di leen waxaat ne ba tey daara ji yëmul ci jël ay góor rek day jël ay jigéen ndax itam euh, lu baax dooni góor ak ñoo ci ne góor yi ak jigéen ñëpp dañ leen jël ci daara ji ay góor a ngi fi jigéen a ngi fi bërëb yi góor ñi nekk ak jigéen ñi dañ leen xàjj la rek waaye yëpp mën nañoo àndandoo ndax lépp lislaam la kon daara yi xamee leen ko noonu day jël góor day jël jigéen képp koo xam nag bëgg nga ci ay leeral mën ngaa woote ci numéro bi nga xam ne moo nekk ci écran bi bu soob yàlla lépp dina jàppandi yéen ñeen ko jàppandal tamit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله